faire avec Bon, dans ce cadre-là, il y a l'assurance islamique. Xam nga assurance système financier euh, dafa am les banques mais il aussi les assurance mm parce que assurance mooy pérenniser parce que nit moom euh, ba dee amee ba tey la ñu xam ne nit moom àpp euh, la am maintenant activité nag nit ki même bu fi jógee activité dafa war a continuer donc assurance volet assurance mooy continuer loolu mhm. donc il y a l'assurance islamique aussi bu ñuy wooyee le takaful yéen da ngeen di leble wala institution financière yi ñoom ñoo koy def. voilà institution microfinance yi ñooy lebale ñun duñu lebale. ñun lii suñu liggéey mooy dañuy accompagner établissement microfinance yi ba ñu ubbi guichet yi parce que boo bëggee def opération de finance il faut que nga am li ñuy wax les canaux de distribution maanaam yoon bi yëf yi war a jaar. alors contrairement ak yeneen programme yi ñoom dañu ñëw fekk fi euh, système classique bi léegi yow boo demee ci guichet. boo ko joxee sa dentité dafay tàppe ci machine bi. donc système boobu di gérer li ngay def mooy da ngay retirer wala da ngay verser wala yaa xam leneen looy def système boobu la ñuy wax le système informatisé de gestion. donc système informatisé de gestion boobu ay paramètre la donc comme que ñaari mode de financement yi bokkuñu ay paramètres donc mënuñu bokk yoon donc ñun dañuy gunge établissement microfinance yi. ñu teg yoon bi nga xam ne mooy jël en compte paramètre finance islamique. vous les poussez vers la finance islamique. en quelque sorte voilà dañ leen di accompagner. on les pousse pas mais on les accompagne à installer. Mhm. et dañ siy dugal suñu loxo aussi. alors bu ñu installé ba pare ñun. Mhm. ay agent marketing ou finance islamique la ñu en fait. dañuy dem maintenant jaay population sénégalaise ne leen dem leen consommer ji finance islamique ak avantage am ak yëpp. population yi mën a dem consommer les produits mais nous aussi dañu am mission dem chercher ay fonds de refinancement. jëli ji xaalis ñëw lebal ko SFD yi ñu mën a financer nit ñi ñun loolu mooy suñu mission. alors en général c'est les pays maghrébiens hein, comme par exemple Qatar ñoom euh, Maroc les pays arabes en quelque sorte ñoom ñooy nekk ci ginnaaw. Mhm. n'est-ce pas. effectivement parce que président de la République loolu comprendre moo tax mu ne nañ diversifier les sources de financement. Mm alors léegi financement classique bi mun na jëlee fonds fu nekk. mais pour bénéficier de ce potentiel bi nga xam ne euh, les pays pétroliers ñoo ko am les pays donc soo deful financement islamique mënoo jël ci seen fonds yooyu nga xam ne bon le président. comprendre vous êtes accompagné par quel pays euh, ñun pour l'instant on est accompagné par la banque islamique. xam nga pays yi c'est pas les pays mais il y a des fonds. des fonds qui sont des structures étatiques. des fonds monétaires ay étatiques ñoo lay ñoo lay ñoom ngay defal ay convention parce que ça c'est un partenariat public privé parce que état bi demu ci moom kese dafa ànd ak banque islamique de développement. Mm-hmm. donc banque islamique développement déjà. mettre na à la disposition du Sénégal euh, pour le développement de la microfinance islamique benn ligne de refinancement de 47 milliards maintenant am na institution yu bëri yu mel ni banque islamique te pare nañu def lu mel noonu donc euh, ñu ñaan yàlla rek euh, ñu egg ci ba guichet yu ubbi sénégalais yi mën cee gis seen bopp. lép bien loo xam nañu ko absorber comme chaîne de valeur. il y a des profils particuliers que vous financez ou vous financez tout le monde? Non, non, ñëpp ñuy financer parce que finance islamique dafay offrir même produit lay offrir que finance classique. boo bëggee jënd kër am na benn produit boo war a jël. boo bëggee euh, def équipement am na produit bu adapté si loolu. boo bëggee euh, accompagnement ci liggéey am na produit bu accompagné ci loolu. Euh, boo bëggee tey par exemple nga soxla xaalis kese banque islamique bi mën na la accompagner dafay nekk actionnaire ak yow. Mhm. donc produit yi finance classique bi di offrir finance islamique da koy offrir mais différence bi ñu am rek mooy. Euh, finance islamique du financer lépp il faut que lépp lu muy financer rek l'islam nangu ko charia nangu ko parce que am na yoo xam ne par exemple charia euh, nangu ko donc yooyu mënoo bénéficier financement islamique mais lépp loo xam ne c'est charia compatible euh, <laughs> kon baar yi ak boîte de nuit quoi bokkuñu ci ñoom waaw ñooñu mënuñu see bokk <laughs> si li ma yaakaar <laughs> alors Alioune toujours égal à lui-même cette prestation c'était vraiment excellent ben beaucoup merci beaucoup bon vous savez hein la musique elle est noble ba nga xam ni que boo koy def. Mhm. Euh, il faut nga yor benn comportement bi loolu moo moo solo. Mhm. parce que le talent ne suffit pas. et toujours di ça donc euh, parfois damay wax ni que talent bi pour man ça représente pour cent. Mhm. de ma carrière donc des na 70 pour cent 70 pour cent yi nag. dafa tom dajeeg mu war a nekk ñi ngay àndal ñi ngay fréquenter sa comportement ta façon de vivre. e tout ça mais bon comme euh, li may dégloo suñu jigéen bi li mu wax. Mhm, mhm. je sais pas comment ça se passe mais xam naa li mu wax maîtriser na ko. dëgg la les les gens à la place qu'il faut. mettre les gens à la place qu'il faut. voilà mi li ngay tourné bitim réew moo ëpp fii de lu tax loolu. waaw non non xam nga parfois aussi euh, comme nous on a eu l'habitude de. Ouais, par l'habitude, on a eu la choix. chance, c'est la ah. euh, une expérience par rapport au festival. Mm-hmm. Donc, euh, yàlla dimbali na mu ñu comprendre showbiz bi que ni euh, Sénégal est un petit grand pays bi nga xam ni que lu nekk am na fi. lu nekk aussi mën nga ko fi am. mais dañuy comprendre ni que marché bi fii dafa xaw tuuti et parfois da comprendre ni dafa saturé et il faut se dire la vérité métier bi ñu am muy musique muy métier bu noble. on a même comme l'impression que ni parfois fi muy jëm du baax ndax ñi nga xamante ni bii dañu raté completement seen vocation vocation ñu ñëw ci suñu musique bi nga xamante ni ñun moom la ñu am def ko suñu gagne-pain ba ni ñu ko waroon a valoriser au jour d'aujourd'hui mm-hmm. je pense que dafay quasiment mi xaw dem out te wax ko aussi dafay metti parce que euh, Sénégal kon fi mu ne nan nga gisee musique sénégalaise bi une uh-huh. question de talent uh-huh. c'est une question de clan de clan et ça c'est pas bon pour la musique la musique doit être universelle fépp foo taxaw ci àdduna tu dois être fier ci sa li ngay def muy métier bi mu musique bi et puis représenter ce pays mhm. on a compris cela ba nga xamante ni que fu nekk ci àdduna bi mën nañ fa mën nañ fa dem te yàlla may nañu chance fu ñu demul amul fu ñu demul représenter Sénégal amul seen bu ñu taxawul amul façon publique bu nekk rencontré nañ la jàkkaarloo nañ ak yow def li ñu war a def donc day baax parfois aussi nga génn dem wuti yeneen rencontre wuti yeneen fusion façon de musique. afin de mieux voilà, promouvoir suñu musique sénégalaise exactement. quoi. Ouais. tout en ne pas ne rester dans notre culture. non non il faut bon, non. la culture important. sénégalaise c'est la culture sénégalaise. Oui. et on est des Sénégalais donc mënuñu ko mënuñu ko romb benn yoon. Mhm. mais il faut aller embrasser d'autres cultures. parce mm -hmm. qu'on est musicien et on doit être pour le monde. dëgg la voilà Papa Sensek. dama am euh, joie euh, gis ku mel ni yaay Fatou toog ci suñu plateau nekk euh, la sénégalaise authentique de visu. macha allah car nekku jigéen bi sénégalaise africaine bi ñu tàmm gis la femme temps scandée par Léopold Sédar Senghor par la négritude la noire donc loolu laay liir ci moom ma ma ma mu nekk symbole damay damay damay damay am damay kontaan bu ma koy gis loolu ah moo tax sànq ma naan ko euh, yaay del del faral di génn télé dëgg la ah, dafa baax dëgg la ah, au delà de tout di génn dafa baax dafa nekk lu koy apporter daf ñuy mhm. ah, daf koy jox daf ñuy jox donc baax na mhm. paala dama koy dama fan yi dama jël di ko wooye paala parce que parce que tur ma neex la te dafa am lu muy symboliser encore par rapport a sa personne et sa personnalité et surtout par rapport ak fa mu jógee donc comme foofu paala la ñu xam moo tax mu bëgg delloo si loolu sénégalais yi bu dañoo war a bàyyi nekkatul Boy Nder uh-huh. parce que léegi Grand la mag la Grand Boy Nder waaw moom moom Grand Boy Nder la <laughs> man paala laay wax parce que paala c'est paala c'est très fort uh-huh. donc euh, am nañu joie mais un grand paala turam la turam la moom turam la xam na ci dara mais mais musicalement am nga gan bu mag tey. Mhm. ñi fi jaar ñëpp mag nañu waaye am nga keneen ku mag ku am expérience mhm. musique. Mhm. quelqu'un de très musical ku am science dedans. Mm. voilà. très bien merci c'est fort ça. alors la soirée se poursuit en musique bien sûr. ah oui xanaa dañu nga dellu ci scène bi rek. mais yaa ñu quelques yu gën a neex rek yi fi mujj génn nii. avec plaisir ok ayca ñu c'est samedi soir boo ci bëgg lan ban si a si. ah Yaay Fatou mais attends euh, je veux tout poser une petite question à Yaay il me semble que da nga moo la gënoon neex ci sama morceau yi. yaru moom a gënoon a neex. Mhm. ak seet si ma. ok donc temps yi ñuy tëgg cosaan di ko jàngal jàngal xale bi en ce moment là. c'était très fort maa nekk étudiante. Ah <laughs> boobu noonu boo doon boo doon boo doon rendez-vous samedi quoi. ak